mag ñi dañuy waxtaan ak yàlla mag ñi dañuy déglu yàlla am na ñoo xam ni nag tolluwunu foofu ndax ñoom defe nañ ni déglu yàlla faw rek nga bëtt asamaan yi nu lay seen nga dem dem ba ni yàllaa ngi ni soog koy déglu fekk nit mën na déglu yàlla ci biir néegam nit mën na waxtaan ak yàlla ci biir néegam ndax asmaawullaahil husna yi rek benn bu ca nekk numéro téléphone la allahu numéro téléphone la rahman numéro téléphone la rahim numéro téléphone la malik numéro téléphone la ba ba ngay ñëw ci ismullahil azam benn boo ci composé borom bi répondre la bu dee ligne bi saturé parce que martaba ba wali yàlla yi ñooy saturé ligne bi martaba ba wali yàlla moo tax nga gis kuy zikr dem ba war a wax ak boromam beneen voix dugg interféré parce que dugg na ci espace intermédiaire boo xam ni borom mi ngi toog di ko garder te ñoom diggante xayb ak shahada benn la ci ñoom kon mag ñi dañuy waxtaan ak yàlla ñi xam zikr dañuy déglu yàlla dañ koy interpeller même te yàlla bu demee ba ni addu uni astajib lakum c'est parce que yëg na ni may na pouvoir yu jëmm mu woo ko may na pouvoir yu jëmm mu ñaan ko waaye may na ko pouvoir bu ni toll mooy wan ka ni dégg naa la tontu ko wan ka ni dégg naa la may ka la nga xam ni ñaanoon na ko te ko ko aarif yëpp xam nañu ko